li ñu fekkee ne suba la gàmmu yal nañ toogaat fii déwén di waxaat ne suba la gàmmu wala semaine wala gannaaw suba la wala bés sàngam la yal nañu ko yàlla may fii ba déwén nag yal nañu yàlla joxit luñ sàmmee diine yi ak ngor yàlla boole ñu ci xaaj bi jëm déwén te lépp lu ñu bëgg fii ak déwén bu luy gunge suñu dund gi ba neexal ko yal na ko yàlla def lépp luy neexal suñu dund fii ba déwén yàlla nañu ko yàlla jox ci fa tabaarakallaahu ren nag ñoom mbégte mbégte mi moo di daaw biñ ne gàmm suba la laa ñibbisi maanaam daaw ci heure bii laa ñibbisi jógee Paris ba si gàmm sax gàmm jiwuma ndax li wolof di wax bët du yenn waaye xam na lu bopp àttan ndax bi yàlla dogalee may xàmmee sama loxo ndeyjoor bi ak bu càmmoñ bii di dem Tiwaawan ba léegi fu ma neex laa daan dal ba bi Cheikhul Hadj Abdou Aziz génnee àddina tuuti rek Serigne Mansour borom daara yi eh, wax ne nay ñëw di gàmmook moom may ànd ak alaaji Yuusu Jóob alaaji Onge Njaay alaaji Papa Njaay buñ toogee ba miin wi mooy ñu dem këram ca néegam gunge ko ba mu dugg ci limosine bi ñun ñu dox jiitu ko ca zawiya Seydi Aboubacar si sëñ Babacar si ca Tiwaawan mu ñëw gàmm ñaan ma ñibbi bi mu génnee dina ma continuer di ko def waaye fañ daan dal dem bi xat te li ma benn waaye wax mu ne ma yow kenn mënatulaa dalal yow yaay dalalaati waaye kenn mënatulaa dalal ndax lay la taxit loolu dëgg la fu ma ne ñépp fekk ma fa ñu mu ma mujj borom kër gi may dalal daanaka lum yekk samay gan la koy jox ay ganam toog te bët du yenn waaye xam na lu bopp attan yépp yamano jamono neexut ma xam ne bu loolu wéyee dinaa ko lor moo tax daaw deewu ma ne comme yàlla sarax na ma fa pàkk bu yaatu dama ko bëgg a defar ba mu baax bu sottalee bu sottee nag kenn daayira yëpp ci Sénégal bu leen neexee ñu fekk ma fa su ma amee mbiskit bokk kook ñoom su ma amee laaxu daqaar bokk kook ñoom su ma amee cere ju amut baase bokk kook ñoom ah bu bëri setee ñu gàllaxndikoo suñ ndox sël mu dem ñibbi waaye ñoo xam ne daal fii ñoo ko moom bu guddi jotee ñu waxtaan suñu yonent waxtaanee suñu yonent ak ki ñu ko xamal muy Cheikhul Hadji Malick loolu laa décidé woon waaye beren jii nag yéen ñëpp yàlla dogal carte yi ma bu baax muy Seydi Mouhamadul Moustapha Sy responsable moral mustarshidina wal mustarshidaati yónnee délégation ka ca bopp ba moo di imam Moussa Guèye jox ko carte yi ne ko neel shérif muy ñeenti kart ne ko neel shérif maa ko invité ren ci gàmmu gi ca kursu ba carte yaa ngi nii pour mu leer ah benn ñaar ñett ñeent mu jox boole ci beneen nag ne ko neel shérif bii na ko taf ci otoom daw ak otom ba ca biir course ba fa may jaar ñu jaarale ko fa recevoir ko mu toog gàmmondoor ak man léegi bi may ñëw rek maa ngi jokkook ñoom daanaka rek mu ngi mel ni Serigne mustafaa mooy ñëw ndax tertu buñ fas yéene xaar ma loolu nag sama fierté la ndax awma ku dut Cheikhul Xaaji Malick njobootam tey bu ñu demee ba bàyyi ma xel rawatina ku toll ni sëriñ Moustapha nga xam ne tey àddina wërngal këpp ku soxorul bàyyi nga ko xel àddina wërngal këpp ku xàmmee ku ne xam nga koy sëriñ Moustapha responsable moral mustarshidina wal mustarshidaati ku yàlla dimbale it xam nga ne yàlla dimbale na ko su xelam toogee ba xalaat ma ak yu baax yi ko jiitu yépp mu seq kook man ci teraanga ak wax yu rafet ñu it ñu di ko ko defal te yàlla tax lu ma mos a mos wax ci moom rek àddina bi yëpp xam nañ ne li ma wax dëgg la te man wax naa ko ba tàyyi sama wax duma ci leble bor duma ci feyeeku bor lu may wax dama koy wax ngir yàlla ngir yàlla ji nag moo di innama nutimukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan walla shukuran loolu ci itaamu miskin lay dellu waaye itaam dafa bari façon am na koo xam ne biiram moo xiif ñama ca bëgg dugg am na koo xam ne ndox la mar waaye am na koo xam ne xam-xam la mar am na koo xam ne conseiller la mar am na koo xam ne am na koo xam ne am na koo xam ne kenn ku nekk ak lam xiif ak lam mar loola nag boo ko ca dimbalee ba noppi la yàlla wax ne bu ca séentooti peyu kenn ku dut man yàlla waaye bu ca séentu it ku la ne jërëjëf innama nutimukum li wajhillaahi la nuridu minkum jazaan wala shukuran moo tax luñ dégg ma wax ci nit rek jëmmi yàlla moo tax ma wax ko sëriñ Moustapha su ma juumut ñu ngi gëj a gisee ca grand théâtre journée culturelle bu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane dem Alaaji Ahmed dem ca sookoon doomu sëtam bu ñuy wax Cerno Saidu Dem bu maam Cheikh Ahmad Tidiane Dem bu Alaaji Ahmad Dem organisé woon ko su ma juumut la woon booba laa gëj a gisanteeg sëriñ Moustapha nii ma toog ak yéen waaye daraam ump ma sama dara ump ko ci mbaaxam nag ak lewetam ak bëgg njobootam ñun njobootu Seydi Hadj gi yépp ku ma ci gis rek Seydi Hadji malik laa la jàppe xooluma kii moo la jur wala kee moo la jur xooluma ku góor jur wala ku jigéen la jur man daal bu la Maodo boo dee sëtu Maodo foo ci sëtoo rek ak ku la ca sëtal na ma xoo bët bi may xoolee Cheikhul Hadji malik bët boobu laa lay xoolee rawatina koo xam ne danga naan Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy ko jur muy Serigne Mustapha sëriñ cheikh ku ko jur seydi aboubacar si seydi aboubacar ku ko jur cheikhul xaaji malik kon ñu ngi sant yàlla bu baax ah di wax ne nag ku bëgg it nga ñëw fekk ma fa rek ci kursu ba ñu bokk gàmmandoor keneen ku nekk it foo daan demit it bu la neexee nga dem fa waaye man daal maa ngi ci kursu ba fa lañ ma invité incha allahu taala wax naa leen it léegi bi may ñëw bi ñuy jokkoon ne naa leen ci kàttanu yàlla incha allah 23 heures 30 dina ma fekk foofa ndax bëgguma sëriñ Moustapha jiitu ma fa te sëñ Moustapha zéro heure lay faral di ñëw wala lu ca tege tuuti rek maa ngi ciy jokkoog ñi ma ci war a jokkool ka ca jiitu moo di Cheikh Kouta ndax ci ñëre organisation ba la bokk bi ñu ma ko waxee ma ne ah Cheikh Kouta de xam naa ko ndax fii lay léeg fii lay xadara li ci ëpp mu ne àjjuma rek mu ngi fi woon àjjuma moom nekkuma fi woon ndax maa nga woon fële ca kër général Fall fa kon ñu santaat yàlla bu baax Cheikh Kouta moom fii la bokk beneen bi ci des nag pour bu waxtu wi jotee rek ñu julli naafi la yeeweeku àllarba maa ngi defee tëj te burdu ci daara Cheikh Ñang fële ci Scat Urbam ci gannaaw hôpital americain bi at bu jot fa laa koy defee ci moom wax boobu lay wax rek ñu julli yàlla def nag eh, bi mu niiru suñu doom joojule mu niiru ñan di doomu Cheikh ñan al moom moo njëkk a waxtaan di doomu nijaay sa doomu nijaay la yaakaar na xaafis hmm? yow bàyyi nga ci moom Cheikh ñan mooy sa doomu nijaay waaw ah, kay fa tabaarakallaahu ndax yaayu Cheikh ñang ak papay xaafis mii ñoo bokk ndey ak baay Cheikh ñan kër ñoom xaafis mii la nekkoon falaa ko xamee 92 93 laa xamante Serigne Cheikh ci kër way juróom moom mii yàlla def bi mu niiru jëlee kàddu mu ne dafa am ku ko laaj xam nga nit ñi lu ne la ñuy laaj ndeysaan mu ne dafa am ku ko laaj ne ko yonent bi moo wax ne salaay salaam te muy dëgg ci xadis ku sos mbir mu rafet baax ñu di la ca roy ku ca defati di nga am ci yool ba ba yowmal xiyam taxaw te du yàq ci yoolam dara mu ne ko waaw loolu dëgg la mu ne ko waaw kon lu toll ni gàmmu bu ko Cheikhul Xaaji Malik sose muy yiw ka ko ko laaj nag gëmut gàmmu moo tax mu ne ko kon ku ñëw ca gàmmu ga nag def fa safaan xam nga ko question gi noonu ma ne Muniru ne ko ku fa ñëw def ko def fa safaan ku jaaxaan di saw la boppam lay tooyal moo yoonu Maodo newu ca ndax Maodo wootewul safaan yonent bi dafa nekk woote yiw ku ca jafati ba yowmal xiyaam di nga ca am waaye daf ca teg ne ku woote safaan ku la ca royati ba yowmal xiyaam da ngay am ci safaan wa Maodo nag wootewul safaan yiw la woote kon ku dem ca yiw ma nag def fa safaan safaan woo ku jaaxaan di saw la rek boppam lay tooyal waaye yoonu Seydul Xaaj Maalik newu ci ma ne ko bi ma la ciy jox benn exemple mu ne ah wa azini naasa yaatu ko ala ko rijaalan wa ala kulli daamirin yaatiina min kulli faj ah, ma waaw ma ne ko nag ñi nga xam ne dañuy dem màkka di aji am na ñoo xam ne dañuy dem màkka ndax safaat est-ce ñooñu yonent bi yàlla wax ne ko wooteel aj yonant bi bàkkaar yañ fay def def ciy am du ci am dara ndax aj la ko yàlla wooteeloo te boo demee ba jidda man xam naa fa ban boo xam ne ñay def safaan yépp fa la ñuy joxante rendez-vous ban boobu utal nañ ko tur damay bañ a tudd tur wi ca jidda nga xam ne bu gaa jee ba noppi fa la ñuy dem di joxante seeni rendez ma ne ko beneen bi ci topp jidda sori na xëy na ko amul paas aji sax doo fa dem ma ne ko waaye jàkka jii ñu toog ndax ci jàkka lañ doon burdee boobu démb ma ne ko jàkka jii ñu toog man de bi may dugg si sama dama boq samay dàll mu ngi nii ci ruq bi ma joxoñ ko boobu sama dàll yaa ngi ci ruq bi ma teg di ko xool nag bu baax boole ci ndax ruq bi fi ma toogee ak dàll yi sorewut ku yëngu boor boobu sax ma xool noo yëngoo ma ne ko waaw ñun ñëpp bu ñu wóolu woon yàlla suñ dàll yi ci bunt bi lañ koy bàyyi waaye bu soobee yàlla ku bàyyi sa dàll ci bunt bii boo génnee doo ko fa fekk ma ne ko waaw te kooku est-ce que mën nga ko génnee ci jullit ñi ki ñëw julli si raas dàll yépp dugal ci saako dem yoonam mën nga ko génnee ci jullit ñi ma ne ko am na koo xam ne yoonam newul ci dàll yi nag waaye mu ngi ci biir sàppe si ku xef tuuti mu tafu sa kalpe yóbbu ci biir julli gi ma ne ko dal na ma ci benn ubbite jumaa keroog lañ ma mos a sàcc waaye keroog lañ may gëj a sàccit nag man imaam Moussa Gueye Kabir Kan moo doon imaam ba ak keneen du tudd turam ndax nit ñi léegi tudd seen tur daanaka jaru ko te yiw rek nga ciy jublu <coughs> ak keneen keroog ñun ñëpp lañ sàpp sàcc suñ kalpe ci jumaa ji te ci sàppe kanam bi laa taxawoon man maag imaam Moussa Gueye Kabir Kan moo jiite mooy imaam ba te moom lañ njëkk a raafal kalpem teg ma ca man teg ca imam Moussa Gueye teg ca kooku may wax keroon lañ fa sàcc ci kalpem kenn xamut nu mu toll suñ premier convoi jëm Louga 2010 yàgg nañu dem Louga waaye convoi mu ngi commencé 2010 2010 yaakaar naa 18 portable lañ sàcc ci bunti kër Thierno Bachir ñi ma àndaloon suñ 18 portable lañ fa sàcc waaw ñooñu ba ñuy sàcc portable yi Thierno Bachir yëg na ko est-ce que Thierno Bachir daf ci ay am bàkkaar du ci am bàkkaar ndax Thierno Bachir sàcc santul kenn ne sàccal portable lu jàmb kon ku dem Tiwaawoon sàcc fa portable wala dem Tiwaawoon mooy fa wala dem Tiwaawoon def fa leneen lu dul yiw yoonu Cheikhul Xaaji Malik newu ca du ci am benn bàkkaar wallahu yad'u ila daari salaami yàlla nee na man wootewu mooy musiba de jàmm ci laa leen woo inna allaha la yàlla ne duma leen digal luy lu lu luy luy kàccoor duma leen ko digal ak lu may moy kon nag bu ñu jël rek benn jullit bu juum ñu àtte ci jullit ñépp kon bul fekk benn tiijaan bu juum nga àtte ci tiijaan yépp bul fekk benn murit bu juum nga àtte ci murit yépp bul fekk benn eh, xaadir wala laayen wala sa ibaadu rahmaan bu juum nga àtte ci ñépp parce que am na ko tudd jullit te jullit moo coiffé ñépp te la muy def daray diine nekku ca waaye est-ce sañ nga ko génne ci biir diine ji sañoo ko kon nag ku bëgg a ma ne leen toog fii nag di werante gàmmoo bidaa la ak du bidaa ku ko am jot la sax ma ne ko ku yi werante fii ay bidaa ak yooyu passé nañ ko ma ne ko weral mu des nag wasila mu di ko laaj yàlla wax ne yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila ragal leen ma ci ut ku leen jokkale ci man dëgg la wala du dëgg waaw boo ko firee neneen nit ma ne leen ku bañ wasila bul juttu Cheikhul Hadj Abdou Aziz moo daan wax ne premier wasila mooy ndey ak baay yàlla dafa tëddee ñun ñëpp ñu ne put juddoo ci asamaan maam Adama ku ko jur amul ndey amul baay yàlla dafa tële ñun ñëpp ñu juddoo noonu maam xawaa ku ko jur ci aadama la fàcce te aadama góor la te gisaguñ góor gu wasil te pourtant maam aadama ci xawaa la jóge xawaa ci maam aadama la jóge ah, ah yoon ci yàlla isa maryama moo ko sayyidatuna maryama ko jur waaye amul baay yàlla lim mëne yépp pour ñu sukkandiku ca gëm ko def na ko bind na ko amul ndey amul baay muy maam aadama bind ko am baay te amul ndey muy maam xawaa bind ko am ndey te amul baay muy yoon ci yàlla isa alayhi salaatu wasalaam kon yàlla ni mu mënee yëpp wax na ko ni mu mënee def na ko ñun ñoo bëgg lu compliqué rek ñun nag liñ bëgg yàlla du ko def ma ne ko ku ci weddi wasila premier wasila kañ mooy ceebu jën bul añ wasila kañ mooy ceebu jën ceebu jën suppu kànja maafe mbaxal kaasu meew ndikki yooyu wasila la di yàlla dafa tere nga dund te doo lekk malaaka yaa ngi nii laa yaakuluuna wala yashrabuuna wala yanaamuuna duñ lekk duñ naan duñ nelaw amuñ bànneex te pourtant malaaka yi ay mbindeef lañ comme ñun waaye duñ lekk duñ naan amuñ bànneex te deewuñu te yow mii boo añut rekk ñépp di yëg was premier wasila kañ mooy añ ah dëgg la wala du dëgg boo añut rek àddina bi yëpp déggu non bu añu ma <laughs> boo boolee nag bañ a añ bañ a reer bañ a ndékki moom ku la gis xam ne yow mii tey am na lu la dal balaa ku la xool rek dina xam ne yaa quelque chose saa waay lu la dal nga ne ko man de damaa añagut reeru ma ndékku ma te dong añ dong nga manqué kon wasila ngoog añ kañ wasila la boo toogee ñetti fan naanoo ndox di nga xam ne yàlla buur la ku la gis dina xam ne yow mi am na lu la manqué lekk ak naan mooy wasila bi ci topp gannaaw ndey ak bàyyi lekk ak naan mooy deuxième wasila Serigne Cheikh Tidiane si nee na ba may mu ne maa njëkk a nekk borom daara ji mu ne ndax boobu bu xëyaan di jàngale tisbaar lay arrêté bu xëyee huit heures tisbaar lay arrêté Serigne Cheikh ne na sama nijaay alaaji Ousmane kan fekk ma ci daara ji may jàngale mu ne booba nag mënoo fexe ba bu may jàng noo mën a toll ma wax ak yow duma ko def nee na ah may jàngale di jàngale ba tisbaar jot ma arrêté ñu julli tisbaar ba noppi ma recevoir sama nijaay mu ne ma Cheikh Tidiane jàmbaar nga de ñii say lan lañ ma ne ko ñii de may seen wasila nee na mu xàqat ay nee na maa ngi ko mere mu ne ma Cheikh Tidiane nga ne ñii yaay seen wasila ma ne ko waaw ñii man lañ yaakaar may seen wasila mu ne ma nax nga sa bopp de ñii ceebu jën mooy seen wasila waaye doo seen wasila <laughs> xoolal rek ni mu ko ko wàccee le te wax na dëgg bu lekk jotee bu sëriñ bu wootee ñu bàyyi fi sëriñ bi dem añ ba seen koll yi fees ñu door a ñëw wuy si sëriñ bi kon kañ ceebu jën mooy wasila bi kon mu dolli ca ma ne ko ku weddil wali li leen yàlla may nangul ko àddina ma leen portable a ngi nii ci xutbu yi la bokk léegi portable xaw ma nag yegg na ci fardul jaami xaw ma waaye xutbu la moom portable yii moom ci aqtaab lañ bokk portable moom xa xutbu piir la ci aqtaab yi lañ bokk xaw ma nag yegg na ci fardul jaami <laughs> walla déet ndax koo gis nga mu ngi ko ŋàbb nga toog fii yor sa portable dugg ci sa compte jënd marchandise bu nekk ca Chine wala ca Inde wala ca France wala ca Arabie Saoudia toog ci sa portable jënd ko fay borom fam ne banque ak banque commandé marchandise bi ne leen yebal leen ma ko ci gaal sàngam ñu yebal la ko ba ci poor bii nga dem décharger sa marchandise gis muy teg teg la nga commandé woon ak la nga jëndoon te fi nga toog jógoo fi Aliou Gaye am na wala amul nga ne xut bu moom mënul toog fii wax ak ka nekk Arabie Saoudite wala ka nekk Amérique wala ka nekk Angleterre wala ka nekk wala ka nekk wala ka nekk massa nag muy jëflanteeg moom nga ne xut bu mënu ko te nangul ko xut bu bii ñuy wax portable ak xutb bi ñuy wax internet ah bañal ko yonent bi ne yonent bi mënul feeñ ci barab yépp te nangul ko waliyu bii ñuy wax télévision am na waliyu bu ñuy wax télévision nangul nga ko ko ndax bu en direct jotee mag gàmmuk tuubaa gi ak màggalu gàmmuk Tiwaawan gi ak màggalu tuubaa buñ ko defee en foo nekk ci àddina bi seetaan ko wala déet wali bu ñuy wax télévision rek moo la koy won ah nga lankal alaaji malik seydul xaaji malik cheikhul xaaji malik nga lankal ko wilaayaam googu ne mënut toog ca Tiwaawan di wax ak taalibeem yépp gis nga nañ bàyyi weddi loo weddi ci wilaaya àddinaa ngi la koy won fang ci say bët te mënoo ci dara kon nag te li gën a widdi li gën a jafe nag ci wilaya Cheikhuna tiijaan yi nee na wilaya moom loo ci weddi rek dootoo ko am looloo ci metti nag loo ci weddi rek dootoo ko am ñàkk nga ba maqaam boobu yow dootoo ko am kon nañu def ndànk bu baax a baax a baax ci xew ci jamono jarul nag werante sëriñ Babacar si radiyallahu anhu daan na wax ne bu leen xuloo waaye na ngeen jàng tontu lu leen waay wax rek xam leen lu ngeen koy tontu yem ca jeex na fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin gàmmu ngoog sunna la bu dëgër sax ndax yàlla njëkk a gàmmu boo gisee ci alxuraan lim tagg yonant bi te gàmmu du dara lu du tagg yonant bi wax ay jikkoom ba nit ñi mën koo rey te yàlla njëkk a tagg yonant bi wa rafaanaa laka zikrak alam nashrah sod sadrak yooyu yëpp tagg la allazi anqada dahrak yàlla jëmmi yonent bi yépp tudd na ko tudd na bët yi tudd na loos wi tudd na nopp yi tudd na làmmiñ wi tudd na tudd na par cër la tuddee yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw allazi anqada dahraka mooy gannaaw alam nashrah laka sadrak mooy dënn bi la yàlla tàgg lisaanu alladi yulxiduuna ilayka ajamiyun wa hada lisaanun arabiyun mubin làmmeñ wa tagg na ko alam najal lahu aynayn yépp bañ yéeg yépp yàlla taggal na ci yonent bi saai sallam waaw yegg ak moom nag ba fa gën a cu mbaxtal yegg ak yonent bi saai sallam ba ne ko walaw laa fad wa kaana fadlullahi alayka azima waaw yëgal ne daal gënale bi ma la gënale ci biir mbindeef yi rëy na màgg na loolu tagg mën na ko weesu kon inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi tasliman tagg mën na ko weesu yàlla ni mu toll ni mu rëy bind lépp moom lépp màggaayam gi kenn xamut fu mu day bu ne maa ngi julli ci sama yonent bi man ak samay malaaka kon yéen ñi ma gëm julli leen ci moom te am fu ngeen yem kon kañ tagg mënta weesu lool yàlla moo bind yonant bi kon lu muy julli ci moom doy kon nañ bàyyi caaxaan waay caaxaan baaxul mag ñi wootewuñ lu dul sharia ak sunna jiitu ca Cheikhul Xaaji kenn mënu ko jam ci sharia kenn mënu ko jam ci sunna fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin boo waxee ñu ne Tiwaawan góor ñi jigéen ñi dañuy jaxasoo Cheikhul Haaji Malik waxul kenn góor ñi nañ jaxasoo jigéen ñi màkkaa nga nale booy tawaaf yaa ak jigéen ñaa koy bokk donte nag bële farata la bii sunna la waaye Cheikhul Haaji Malik waxul góor ñi jaxasoo leen nag jigéen ñi de def na ca xasiida ne tagg màggal yonent bi lu war la waaye nag mu ne ba mu des ñu jaxase sa lu xaraam lu ca bokkut kon nañ bàyyi xel bu baax ku ciy dem Tiwaawan yëgal ne Cheikhul xaaju Malik njub la santaane yëgal ne Cheikhul Xaaji Malik yiw la santaane yëgal ne Cheikhul Xaaji Malik léppam ci charia la ko teg ak sunna ñu bañ fa demee suñu bakkan bañ fa demee leneen lu dul jaamu ji yàlla ak dëglu la ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi ba bu ñibbisee mën ko ca roy loolu la gàmmo di jëriñ ak it suuxat mbokk gañ fay suuxat mbokk boo demee di nga fa taseeg say mbokk yoo gi ji gis loolu rek dundal njoboot la dundal famille la dundal dox mbokk la loolu rek jaroon na dem ndax mbokk giy jógee fu ne nga tase fa ak ñoom ah, jar na ko su ko defee nag kon ku bëgg daal gàmmu xaraam yaa ko xaraamal waaye gàmmu moom lu dagan la fa yàlla ndax li may wax toujours foofu laay jeexalee sama kàddu mag ñi kenn gënu leen ragal yàlla koo ci jël ci ñoom rek muy Seydul Xaaji Malik muy maam borom Touba muy ku mën a doon ci ñoom koo ci jël yow mii toog ba di leen critiquer boo xoolee sa bopp xool leen di nga yëg ne mën ngaa toog fukki at di ut nooy ragale yàlla te jot doo jot mag ñi fukki at yàlla laa wax nag mën nga ko toog di seet nooy def bi ragal yàlla te doo dab mag ñi fekk na ñoom dem nañ bu yàgg bu dee ragal yàlla ñoo la ko gën a def bu dee xam-xam ñoo la ko gën a am bu dee wattandiku ñoo la gën a wattandiku kon loo leen di jaay yow mi leen di diir mbagg loo fi defagum lu nit mën a teg loxo yow mi naan mag ñi liñ liñ créé dafa xaram yow mi ko wax loo fi defal yàlla yow jumaa ju rafet sax sampoo ko jumaa ju baax sax sampoo ko ba jumaa bankoo sax tabaxoo ko mënoo jàpp ci loxol kenn ne kii maa ko jubal gannaaw yàlla yàlla juba njubam yàlla nga ko jaarale ci sama loxo mënoo jàpp ci loxol kenn ne kii maa ko jàngal ba mu dañu réer mag ñi nga fekk nag ay milliers de personne jàngal nañ leen bañ dañu réer ay milliers de personne téye nañ ci seen loxo bañ yegg ca yàlla ay millier de jàkka lañ tabax yow defalagoo yàlla dara dara dara dara ba dara booloo jeex nga taxaw di critiquer mag ñi yaay kan xoolaatal sa bopp nit sax balaa nga koo critiquer nga def lu mel ni lim def sax boog au moins waaye yow defagoo dara bu dee niigum ñax sax sampagoo ko nga fekk ko tabax dëkk nga di ko sabati ah nañ daytalu daytalu mooy nañ yem ne yem mag ñi njub rek lañu woote mag ñi baax rek lañu woote mag ñi ku leen topp topp nga yonent bi mag ñi ku leen topp boo jàddul gauche jàddoo droite topp ci seen gannaaw buñ teeree teere waaleel la ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca yonent bi ku teer ci moom teer nga ci yàlla lii rek mooy wax bi mag ñi loolu rek lañ leen di doyee ñu ommat ñu kott kott yoll yoll ba ci loxol yonent bi salaay sallam yonent bi salaay sallam teg ñu ci loxol boromam yàlla nag soxorul du ca teg lu dul haadihi aljannatu allati kuntum tuadun islawha bima kuntum taamaluun yàlla nañu ko yàlla boole defal yàlla nañu yàlla may ñu fekkee at yu baree bari yàlla nañu yàlla su ñuy sëriñ yàlla nañu yàlla bàyyeeg suñuy sëriñ yàlla nañu yàlla bàyyeeg suñuy sëriñ ñi ci des ñépp nag ku ne fa nga aju yàlla la yàlla defal sa teraanga foofa sa naanuwaay foofa sa xam yàlla foofa sa yegg ci yàlla foofa sa am yàlla foofa sa am àdduna foofa keneen ku mën a doon it feneen foo aju yal na la yàlla defal lu mel noonu te yàlla bàyyi ñoog suñ sago may ñu gudd fan ak wér may ñu wér ak wérle may ñu mucc ak mucc le may ñu wërsëg yu yaato yaatoo yaato yaatu ba kenn loo kenn ku ne ci ñun loo bëgg a def ci diine tarixa mbokk yépp yàlla may la nga def ko ci mbaaxam ak yërmandeem ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla dolli sutura yal nañu yàlla dolli sutura yal nañu yàlla dolli sutura sutura daa iman sutura daa iman sutura daa iman bi mahdi fadlillahi wa juudihi wa karamihi wa bi jaahi wujudi sallallahu alayhi wa sallam wa bi barakati mawlana cheikh alxaaji malik ibnu osman alayhi ridal malik yal nañu ko yàlla defal ci barkeem yal nañu yàlla may ci barkeem yal nañu yàlla may ci barkeem lépp luñ ko ñaan moom suñu borom yal nañu may liñ koy ñaan ci barke cheikh alxaaji malik yal nañu yàlla may liñ koy ñaan ci barke cheikh alxaaji malik ko ñaanul sax yal nañu ko may ci mbaaxam waaye ci barke cheikh alxaaji malik in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.